Mm. xam nga Sonko dafa nekk euh, mooy maanaam dafa nekk benn yoon. ok mooy <coughs> tëbul tëbul rek ñu ne ko kenn du la jox fiche de parrainage. Mm. yoon moo ni rajee nañ ko ci liste de parrainage bi. Mm. ñoom ñu dem di wuti recours képp koy wuti recours mooy dafa am daan bi ñu la teg ba pare ngay dem di wuti recours. ok léegi nag recours boobu soo defee gain de cause gain de cause benn. dafa amoon délai boo xamante ne moom mooy tax gain de cause boobu mu nekk loo xamante ne dafa valable. ko ndax les parrainages fii ak décembre le deux mois la. Mm. on a largement le temps certes bu dee ñeen ñi démarré nañ ba pare sax peut-être mën nañ ko wax. Mm. mais ci wàllu yoon il leur reste dix jours. Mm. te dix jours pendant deux mois soo ko génnee donte am na lu la manqué mais yenn saa yi dañuy comprendre que ni yow yaa nekkoon ci jafe-jafe yooyu. kon dix jours yooyu foog ñu xaar ko ndax euh, dafa am ñaari paramètres yu ci am. donc il faut ñu xaar dix jours yi jàpp nga ni il faut ñu hmm? jours yi voilà fiche de parrainage yi di génn. loolu nga jàpp. waaw parce que xam nga lu tax xam nga lu hmm. tey jii su dee ñoom dañoo dem tey jii suba ñu jox leen fiche de parrainage. Hmm. exemple. Hmm. ñu dem cour suprême cour suprême annulé waa décision bi mais euh, léegi cour euh, parrainage yooyu léegi lu muy demee. fan lañ koy dugal. ak nan la ñuy doxalee. xam nga loolu yëpp dafa am kon c'est-à-dire su doon ñoom nekkuñu dans les délais. ñoo toog xëy ni ne temps bi dafa gàtt. Mm. même bu dee tamit temps bi nga xamante ne am na ay jours yu moyens yoo xamante ne mais dañuy xam ne tamit ñoom ñoo nekk ci benn condition boo xamante ne. alors euh, il faut ñu def ñu def au départ. alors euh, dina ñëw exactement si li nga xam ne que moo di recours bi nga xam ne itam les gens de l' état déposé nañ ko Gallo mais Gallo dañuy daal di ñëw. si li nga xam ne que moo di euh, euphorie bi nga xam ni itam ànd naag ak li nga xam ne que moo di boobu de décision est ce que lii mettre à kaw suñu état de droit si demee ba ne. Jubilé bi léegi su su waxee dëgg euh, da ko a ak ak est-ce que euh, euh, jubilé bi nga xamni tam gis nañ ko est-ce que nekkoon askan wi danoo asufaay asuwaafe won de de de de de la justice a ak le yoonal di daal di koy été comme nous sommes sobé exactement li nga xamné que modi askan bi jubilé bi nga xamni tam gis nañ ko et que un peu partout à l'échelle internationale ñu koy daal di li nga xamné que modi justement waxtani li nga xam que moo tey Sénégal euh, la justice a été dite lu nu mel ñun ban jàngat la ñu war a mën a def parce que si, jot na ñu daal di war a mën a posé waat ay questions par rapport ak suñu 18 juge yi nga xam ne am na leen fii si réew mi le pourquoi tey Saba Sifay tey euh, il a été primé au-delà li nga xam ne moo de ces 18 xam nga dafa am loo xamante ni damaa bëgg mu xam. Hmm. dafa am loo xamante ni opinion la. Hmm. dafa am loo xamante ni opinion la. Hmm. dafa am loo xamante ni réalité la dafa am loo xamante ni far la. ok tey jii étape laa lay wax étape par étape jubilé opinion la ça dépend ci personne yi nga xamante ne dañoo far ci ki ñuy àtte xam nga Ousmane Sonko dafa nekk échelle nationale et internationale. quoi qu'on puisse dire. koo nga fay koo nga ànd ak moom. àtteem ñi ciy jubilé day fay bari. mais chaque jour su dee da dem tribunal lu baree baree bari di nga gis nit koo xamante ni dafa nekk correctionnel. ñu hmm. tëdd fa mu tëdd fa at. wala mu jotee nit ci flagrant délit mu ñëw ñu àtte ko relaxé ko wala ñu jox ko dëgg mais ay mbokkam dañuy jubilé foofu ci buntu tribunal bi n'est-ce pas. moom day jubilé ay mbokkam di jubilé. léegi nag loolu mooy ñii farta ànd ak ñii. mais saa nga jékki-jékki ñu gis technique ay daan ay nit di jooy. mais gala dañuy naan loolu mooy état bu. waa d' accord naa mooy loolu mooy ñëw mais bu fàtte ni Ousmane mm. Sonko li nga jible de o que é ma wax. Ousmane Sonko comprendre nga. Mm. c' est à dire ñi faral Ousmane Sonko ñoom ñooy def promouvoir ni euh, la vérité a été dite wala affaire yooyu parce que kooku moom moo wax li li leen arrangé ñoom ci parti boobu. parce que tamit bu leen fàtte ni il faut ñu d' accord benn affaire. Hmm. ni Ousmane Sonko leader politique boo xamante ni dafa am ñu ko bëgg. Hmm. am ñu ànd ak moom ci benn projet boo xamante ni mu bëgg a nekk président. moom lu mu liggéey ci benn potentiel. loolu bu dee dafa am yoon judiciaire. allo allo. comprendre nga. allo wa euh, mais Gallo mais Gallo li nga wax c'est important c'est important mais quand même ñu gis ni euh, sénégalais ñom euh, mm-hmm. peut-être au-delà de ces sympathisants dañoo daal di japp ni les dossiers d'Ousmane Sonko sont exceptionnels parce que li yoon wax rek moy contumace bi moom dañ na bis ba nga ko daal di jàppee n'est-ce pas neel benn benen bi mooy yow ak say morom japp ngeen ni Ousmane Sonko da nga ko doon acquitté si mbiram ki nga xamné ne moo Adji Sarr ginaaw ban xamé ni viol amul dara amul donc corruption de la jeunesse bi ñu bëri teg ko li nga xam que moo ay tiaxan exactement ministre de la justice aussi su génnee ah. euh, euh, la muy wax ci faculté yi euh, ñu muy jàngal ñu bari yaakaar nañ du reprendre ci li nga xam que moo plateau yi donc est ce que nekkoon Ousmane Sonko cité tey benn adversaire à abattre. xam nga xam nga tay ji dama lay wax ben affaire xam nga hmm. le droit. Hmm. dafa bari ño xamante ni dafa am lo xamante ni ñun ñëpp dañ ci wara d'accord loi bi droit dafa nekk. loo xamante ni lu ñu texte la hmm. mais ki koy àtte chaque jour da koy interpréter hmm. parce que euh, invité nañ ci benn plateau euh, avocat Ablaye Jali Kane ak keneen hmm. mais muy wax ne ko droit bi ñi ngeen inter article bi waxewuñ ko noonu mais invité nañ deux fois ay nit ci ci plateau ñu ni contumace ki nga xamante ni contumace la ñu atte ko ci contumace muy contumace saa yu ñu ko jàppee décision bi dafay ñii nee nañ non saa yu ñu ko jàppee ci fee boobu ñu ko jàppeewu ñii ne déedéet su dee dañ koo jàppee ci beneen fee ça n'a rien à voir avec le comprendre nga li ma la hmm. interprétation boobu mi fi nit ñaa ngi ciy waxtaan léegi mu am ñaari parti mooy loo xamante ni kenn mënu koo bañ parce que euh, kaaw Ousmane Sonko dafa am coloration politique te mbir boo gis ci àdduna soo amee coloration bu amee coloration politique il faut que mu am ñoo xamante ne dañuy far fii di waxee ni nga xamante ne moo leen arrangé am na ñoo xamante ne dañuy far fii di wax ñi leen arrangé. mais jàppoon ni c'est très grave euh, ay loi yoo xam ne ñoo ko jël castré ko euh, loi yoo xam ne ñoo ko xalaat castré ko. xam nga sànq yaa ngi wax saba si dañ ko primer au delà de ces dix hmm. yaa ngi koy wax. Hmm. pourtant am na ñu koy ŋàññ. Hmm. ne nee na lien de parenté ak premier adjoint au maire bu Ziguinchor moo ko permettre mu doxalee ni. am na avocat avocat état bi ne ñoom. mënuñoo plaider huit heures ci suba ba vingt une heures wala vingt deux heures. Hmm. moom mu dem retiré wu en cinq minutes mu génnee li muy yii hmm. nee na ku ko def cela veut dire que ne préparé woon nga li ngay wax. Hmm. pourtant am na ñeneen ñu ko naañ. comprendre nga kon atte moo mel noonu amul benn ku ñu atte ci àdduna amul muy Ousmane Sonko muy Karim Wade muy kii même civil bi nga xamante ne dañ koo atte civil la civil koo xamante ne benn nit la ñu atte ko. mu kontaan ci atte bi wala mu ni non liñ ma teg jaadu na wala ay nit ne non kii liñ ko teg jaadu na. Hmm. atte moo mel noonu. Hmm. interprétation la boo xamante ne yow miy toog yaay xool ni lii ñu ma tegal ak lii argument yi ñu ma wax lii laa ci war a jël décision nga jël ko. dina am ñu ciy ànd wala mais nag ñu ci ëpp na suñu àndee dañu xam ne di logique na. Hmm. alors alors. Euh, mais sànq ba tey yaa ngi naan li nga <coughs> xam ne que Mori Saba si le fait que ñu koy reproché. ay yëfu euh, parents tey euh, jàpp ne lu nu mel ay euh, état ay débat de bas-étage la waru mën am benn impact par rapport ak li nga xam ne moo di justement jugement bi. sama gis-gis. Hmm. waaw ci sama gis-gis parce que ñoom nag xam nga ñoom seen critère de loi dañuy naan loolu tamit da ciy bañ. Hmm. ndax bu fàtte ni Ousmane ko bañ koy àttee ci affaire Mame Mbaye Niang am na kenn ko doon toog juge de siège ñu ni dafa jógee Victorine Ndeye. Hmm. dañ ko mujjee ab euh, cour d'appel ba ah dañ ko mujjee changé. ok alors euh, mais euh, mais concrètement euh, li nga fi développé yëpp am na solo euh, Gallo par rapport diggante compte max bi nga daal jàppee ba tey mais est-ce que le juge sabali def euh, loolu nga doon xaar si moom exactement. non man xam nga day ji man nekk xam nga du ma juge. xam nga du gis ak ak juge bokkul voilà non concrètement voilà concrètement hmm. Hmm. man xam nga lu ma gëm ak lu may xaar ci nit mooy li Ablaye Wade wax hmm. mooy juge bu toog di àtte nit ci selon liñ liñ lay jox liñ lay jox liñ lay jox nga xool ci li nga ci li nga ci gëm ni moom mooy réalité parce que nag dafa très difficile pour nga gëm ni lii mooy réalité wax li arrangé nit ak lan moo ciy dëgg bokkul xam nga dafa am benn procureur boo xamante ne imam la dama ko daan suivre tebee ñu invité ko ne ko ndax procureur mën naa nekk imam kuy àtte mu leen effectivement parce que yow li nga jox pour nga àtte ay fee la ak ay wax mm. yow yaay sukkandiku ci loolu pour xool ndax dëggantaan lii mm. doy na la wala doy na la nga mm, jël ci décision mais loolu sax n'engage que la personne parce que ki nekk ci tuus bi mën ta xam ne kii décision bi mu jël da koo jël ndax farfarloo da euh, ndax da koo jël pour plaire nit wala dañ koo menacer wala da koo def te yàlla tax lenn dong la mun a def mooy mu xool ci li mu wax mooy comme li ñu wax bu ñu defee ba pare li nga xamante ne moom la ñuy liir pour wane ni ci lii ak lii la sukkandiku léegi nag moom liir na ci li mu sukkandiku pour wax ni Ousmane Sonko dañ ko war a delloowaat ci fiche électorale bi mais am na ci droit. te loolu tamit jaadu na ci par rapport ak ni mu ko waxee. ok alors euh, euh, mais gis neen aussi li nga xam que moo di euh, les gestions de l'État tout d'abord seen comportement naka na ko daal di jàngatee ba waral UMS génn di def benn communiqué pour daal li nga xam que moo di redresser Gallo.